candidat yi rek tardé ñoom rek tànn pour ñu ñor ambiance bi yéen nag yéenay voté yéenay jury on est d'accord pare ngeen pour ñoom léegi dañ leen di laaj ku nekk nan nga tudd ak fan nga jógee ayca nan nga fan nga jógee Ouest ana waa Ouest Foire ana waa Ouest Foire merci beaucoup Saly Ouest Foire ça va toi Kilina acca Kilina fan nga dëkk Gibraltar ana waa Gibraltar est-ce que mu ngi Acha merci beaucoup ça va suñu jongama bi ça va jongama ñëwal noo tudd Aminata t'as quel âge t'as quel âge toi 4 ans ah, Aminata na nga ñëw pour seetaan fii mën nga sawu fii ban son e nga Aljena. aljana mën nga woyal public bi tuuti ah woyal leen tuuti. Merci beaucoup, Aminata. Merci beaucoup. Ça va, toi où? Maria. Maria, Marianne, faut Plateau. Plateau, allez voir Plateau. Atia, what's vos applaudissements, s'il vous plaît. Atia, n'a que tu Khadija. Khadija. Khadija, vous êtes Djebel. Djebel. Aniwa Djebel. Aniwa Djebel. Merci beaucoup. Ce qu'on a fait, dañu leen di laaj ban son ngeen bëgg fecc su ko defee ñu tegal leen ko après ma woo sama DJ bi moom mooy xool kan mooy wàcc ak kan mooy toog on est d'accord on est d'accord aco ban son ngeen bëgg fecc

xale yi numéro un. merci beaucoup yéen nag ay fan visite franchement fan ah yéen da ngeen bëgg visite parce que di wax son comme hymne national bi moom da ngeen ko bëgg quoi léegi su ko defee ñuy dugg mu ñëw ñuy dugg mu ñëw fan yii ana ñu fan fan ñëw. tegen é de man tegen Kesho Hoyna. Voor je voor je. De visie voor het in wat zal ik hier. Ah. Visie. Ah. Hier iedereen. Visie voor het visie. Nee, ada. Tegen kom goed die hier wat aan de hand. Kom goed op. Gaan we nog kunnen winnen. Waar je? Visie voor het visie. Dat tegen kom goed op. Waaw, dat is mooi hoor. Ah.

C'est quoi son nom On parle avec lui Bachir. Ah, Bachir Yeah, c'est mon frère. Hein Bachir Kangbe, c'est mon frère. Bachir de Horonou, gars. C'est mon frère, c'est mon jumeau aussi. Ah, tiens, je fait Il y a un animateur aussi qui est là. Il s'appelle comment c'est la 2 Ah Il se nomme comment selon vous Didier Didier Didier Didier Allez, Bachir DJ boy dafa waane nag sama grand la mais dama koy toj quoi dafa waane day nekk si télé bi naan huit sunu vigile dix neuf. oui xëcc a il est trop fort on est d'accord on est d'accord moom moo dàq nag li muy def wala maa ko dàq li def moom moo gën a aay moom moo gën a aay ak mën a seq te waane xale yi moom la ñu bëgg xale yi Bachir. tu peux venir, mon frère. Bachir KMB et demander sur scène. Bachir KMB, mon frère. mais visi visi visi visi cancer côté a côté def leen nit ñi ñàkk visi visi visi visi kase ah xaar visi visi visi visi kase laa lii te dafa mel ni fii moo gën a neex de fii a dàq fii moo gën a neex feene cak jigéen cak fii moo eh da ngeen koy boole tàcc fii moo xaaral ma ñëw fii fii moo gën a neex tu combattant eh fii yoo gën neex fii fii moo neex fii moo bëgg loxo yi yëpp na ci kaw loxo yi ci kaw loxo yi ci kaw loxo yi ci kaw Dogo. Hana Dama Dof. Degu. Dogo. Fio Guerreiro. Dogo. Eh, eh, eh, Dogo. Eh, eh, eh, Dogo. Eh, eh, eh, Dogo. Ninguém ri, Dogo. waaw léegi xaar leen léegi léegi xaar leen dafa mel ni. mais da ngeen koo xam léegi xam nga lan laa bëgg après ma dem sama yoon. dama bëgg si. ma dem ma dem ah ma dem ma dem. yow danaa ñaaw moo tax nga dund demal. sama maquillage bu ëpp.